asalaamaaleykum wa rahmatulah. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu les internautes yi ñuy seetaan yëpp. Eh, di jiital si nuyoo bi suñu sang bi taxaw Missirah Diakité. te lu tax ñu dugal ko pour ñu def émission bi ak moom. voilà mooy tey lii suñ ko amee si xar yi. yàlla def na sutura yàlla ak moom la. ndax kii moo ñu jox yaayam moo ñu jox papa. moo tax ñu bokk si élevage bergerie bi nag mooy bergerie bergerie ak Satar. troisième place Serigne Mansour nekk Tivaouane. waaw ñu ñëw représenté fi tey regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage muy REDPEL. waaw ñoom lañ ci teew tey ci adam bi macha allah. waaw moom sant yàlla wax dëgg fa yàlla suñu amoon. suñ suñuy suñuy impression suñ avant ñu ñëw Tivaouane suñ nekkoon dix te mën nañoo wax ne àgg nañ ci cent ndax wax dëgg fa yàlla adam bi macha allah alhamdulilah côté organisation macha allah côté ressources humaines mooy ni ñi ñu fekk da xam ne ay nit dëgg nga fekk moo lay wax ne élevage mi leen la ku nekk nga fiy dajal ku nekk mi ngay gisanteel ku nekk ngay xamanteel mais da ngeen mën a waxtaan si lépp yaa ngi te tabaarakallaa ahsanal xaaliqiin lépp si xar lay tourné wu. ñu si sant yàlla nag. di sant tamit association bu ñu jugee. nga xam moo ñu yabal tey ñu ñëw teewal leen tey président moo nekk nii xam naa balaa ñuy pare dina dugg. saani si ay quelques kàddu macha allah. suñu suñu faree tamit teg ñu si yoon. présenté ñu tey éleveurs yëpp gis nga rek bi nga ñëwee sànq yaa ngi gis ay éleveurs yu ñu indi duñu ko présenté kum jàpp ne daal war nañ ko xam mu war a mën a yëkkati cheptel bi indil nañu ko. waaw du nuyu suñu frère Pape Mbaye Sow tey ku nekk si foire bi day jàpp ne moom moom xar yi mooy borom box bi bu bëcc kii moom moo moo délaissé. muy jël foire Tivaouane bi à sept mois moom mi moom moo ko yoroon nekk koo xamante ne suñu élevage lu mu si mën ñun ko si macha allah. tabarakallah en grosso modo daal on est vraiment satisfait allah. te ngeen bàyyi ñu a soona a soona bi BDS ak Satar tey ku dem Tiwaawoon amoon nañ fa maam boo xamante ne mooy maamu Sëñ Touba en même temps mooy maamu El Hadj Malick maam Makhtar Penda si moom lañ daan woowee maam salaam ak Satar da daan def bu suba. yaa salaam yaa sataaru yaa salaam yaa sataaru tubaar gars yi ngeen jël su julee tusbaar pare yaa salaam yaa sataaru sataaru ba takusaan yaa salaam yaa sataaru ba timis yaa salaam yaa sataaru ba gee yaa salaam yaa sataaru ba fajar samay nopp papa nee na def ko diir boo xamante ne daal ci gàttal ëpp na vingt ans mu jékki-jékki leen ne kamaj waxatul sëriñ di ñëw si moom naan ko maam yaa salaam yaa sataaru lu tax nga arrêté sa salaamu yaa sataaru mun leen lépp lu ma doon ñaan yàlla may na ma ko tey su ma rusul woon suma ma rusul woon diine jàmma dama naan bépp bépp sët bu jigéen bi ma am man na ilimaanu juma ne bépp sët bu bokk sama gaño man bokk sama deret tey jii nii nga bëgg ko nga bañ ko yàlla dina la def waliyu awliyaawullah mooy maamu sëñ Touba di maamu Seydil Hadji Malick loolu nag silsila boobu lañ jël ñaan yàlla salaam gi ak sakkaar gi ñëw sëmbaxtalu superviseur bi incha allah asalaamaaleykum encore une fois Baye Ndiaga maa ngi lay bëggee bu baax eh, di bëggee ñëpp ñuy seetaan di nuyu ku nekk ci turam ak santam eh, di leen jaajëfal vraiment lii passion rek moo ko mën. Hmm. parce que kii sunu sëriñ la sunu frère la sunu rek la. waaye yàlla dogal na bokk muy sunu bëgg. di lu doo xam ne sunu liggéey la itam. di loo xam ne moo ñuy wettali ko bokk muy jur gi. donc gën nañoo jegeeloo. mu nekk tey un un vrai frère et un vrai ami ah macha allah. di ko nuyu di ko ñaanal jàmm. ci bergerie bi ak sutura ak yokkute bu baax a baax. waxtaan aussi tam ci liggéey bi. voilà defe naa wolof danaan euh, ndimbal da ciy fekk. si waxaat na ni lu neex a sànni. kon moom ma en résumé ku neex a jàppale la. naam jox nañ ko ay xar waaye jomam ak fulam ak. bëgg avancé moo tax affaire yi.

dina bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati drapeau rektal drapeau élevage Tivaouane fu sori parce que ku ko bëgg la ku am ambition la donc di ko ñaanal suñ borom defal ko barke ci élevage am defal ko barke euh, éleveur u Tivaouane yëpp vraiment kontaan nañ trop ci exposition représenté na dignement l'élevage de Tivaouane au niveau du salon jërëjëf